ñaari njiitu réew yi fi nekkoon di Abdou Diouf ak maître Abdoulaye Wade ñoom daal ñu ngi ñaalu bu baax baax événement yi nga xamante ne moo yëngaloon réew mi ba sax mu mujj yóbbu ñetti doomi aadama ba tax na ñu ngi présenté seen ay condoléances ñi ñàkk seen bakkan ci mbir ñi. mu di Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñëpp ñu ngi wax ak sénégalais yi di fàttali ne xeex bu méttee métti la ñu amee li nga xamante ne moo di suñu démocratie ba tax ñu ngi woo acteurs politiques yi ñuy waxtaan lépp ci intérêt Sénégal pour ñu dakkal li nga xamante ne moo di seen ay coow. ak crise politique bi te loolu yëpp dañ ko war a def pour sàmm li nga xamante ne moo di jàmm ji ak bakken yi ki nekkoon deuxième ak troisième président bu Sénégal mu di Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade ñoom daal ñu ngi woo acteurs politiques yi ñu bañ a def ñoom li nga xamante ne defuñu ko bu ñu noppee ci acteurs politiques yi ñoom daal ñu ngi wax ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi ne xam nañ bu baax li nga xamante ne moo di seen ay mer ba tax na ñu ngi wax ñu arrêté li nga xamante ne moo di violence bañ a bien public yi tamit yi moo ci li nga xamante ne moo di manipulation te manipulation bi mën na jóge fu nekk ba mën a yàq li nga xamante ni moo di sunu dëkk bi